gi waa kër Abdoulaye Wade ñi ngi ñaaw li ñu seen tur ci lu ni mel te loolee rafetlu wuñu ko AGPADS bu Mamadou Diop Decroix ñoom it bokkuñu ci boobile projet nga xam ne ne mooy coalition double XL bu kujje gi ak lépp li nga xam ne moom lay àndal naam sax Khalifa Ababacar Sall seeti woon na kii di Mamadou Diop Decroix waaye ñoom daal dañoo jàpp ne ne loolee daal mënuñu cee bokk te mën nañoo am yeneen xalaat teg fi kuréel goo xam ne ne dina gën a am doole ngir ñu jàmmaarloog président Macky Sall ci élection locale yi yi tamit bokkul ci boobi les proposition muy convergence libérale et démocratique bokk gis-gis ñoom ñooñee kenn mësu leen a boole ci li nga xam ne ne mooy ay waxtaan ngir teg lu ni mel ba tax na rek ñu ne ñoom duñu ca bokk parti bu Pape Diop bi dañoo jàpp ne ne xel xalaatul lu ni mel maanaam teg benn coalition boo xam ne kujje politique yëpp dañ ciy bokk waaye lu ci mënti am rek waa bokk gis-gis ñoom lu ñu bëgg ñu créer ñaari pôle ci kujje gi yu dëgër këcc yoo xam ne ne dinañu mën a jàkkaarloo ki nga xam ne ne mooy Macky Sall ngir jëlee ko ci nguur gi naam ci loo